بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ñu ngi sant sunu boroom mu màgg mi ca kawe di ko bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom mooy ki ko jagoo mu ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim tey di fukki fan ak ñaar ci shahru ramadan al mubarak démb ci suñu bindu tafsir al quran al azim ñu ngi taxawoon ci laayey juróom benn ci suuratu zumar tey ñu war a tàmbalee ci laayey juróom ñaar ci saar wi nga xam ne moom la ñu tàmbali démb muy suuratu zumar sunu borom di wax ni audu billahi samii al alim min alshaytan arrajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون كن لا يويو مموي سنو بندب تفسير تي في سورة الزمر بني فاتلكو ديمبو ci bopp saar wi nga xam ne moom mooy suratu zumar borom bi subhanahu wa taala dinu nettali aslëf ci loo xam ni tagg la ci téereem bu tedd bi te màgg muy alquranul karim alquranul karim walquranul azim walquranul majid yii yëpp ay xeeti tagg la yoo xam ni borom bi daf koo taggee téere bi ngir kenn ku ne ci ñun mu gën a xam solo si nga xam ni téere bi am muy téere boo xam ni borom bi da koo wàcce ci ñun pour ñu koy jàng di ko settantal di ci jariñu sunu borom ni kitaabun anzalnaahu ilayk liyadabbaru ayaati wa liyatadakkara ulul albaab téere la boo xam ni borom bi da koo wàcce ci yow ngir nu koy jàng di ko settantal sunu borom mu ni ngir ñi am xel te nekk ñi sunu borom baaxee ñu man caa jariñu yàlla sunu borom boole ñu si ñooñu sunu bindab tey mi ngi tàmbalee ci waxi sunu borom sunu borom di wax ni in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi lkufr sunu borom mu ni in takfuru bu ngeen weddee seen borom lim leen sant ngeen bañ koy def lim leen tere ngeen dëkk ci di ko def mu digal leen ngeen topp ko màggal ko sellal ko ngeen bañ su sunu borom santaane jëm ci wet ngeen def lu jëm ca wet ga ca des sunu borom ni in takfuru bu ngeen defee loolu xam leen ni fa inna allaha sunu borom yàlla ganiyun ankum mooy ku oom lu la ci yéen mooy soxlaalu leen dara nu ànd yëg ni mbokk yi jaamu yi nuy jaamu sunu borom du sunu borom moo koy jariñoo déedéet maanaam ñun kay ñoo koy jariñoo waaye sunu borom daf noonu nam ma yërëm yërmande jooju mu jaare ko ci jaamu gin koy jaamu ngir mu yërëm ñu ca waaye du moom dafay jariñoo jaamu ci moo tax mu ne in takfuru ba ngeen weddee topp seen bànneexi bopp fa inna allaha yëg leen ni yàlla kat ganiyun ankum soxlaalu leen dara mooy ku oomal la ci yéen maanaam bu leen ñàkkoon lool du ko wàññi dara ndax ay jamono ngi foo nekku leen fi ba mu leen di sàkkit du benn gëtën gun ko gëtën ba tax mu sàkk moom suñ ko jaamoo du ko dolli dara buñ ko jaamoo du ko wàññi dara loolu moo rotoon ca xadith al qudsi ba yent yàlla bi wax sallallahu alayhi wa sallam mu ni yaa ibaadi yéen sama jaam bi law anna awalakum wa axirakum wa insakum wa jinnakum ila axiri alxadis yéen sama jaam yi seen jinne yeeg seen nit ñi buñ dajale woon booleeg ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi buñ dajale woon ndaw ña bokk ca mag ña bokk ca muy mbooloo moo xam ni place bañ mën a xaj yàlla rek a ko xam ñoom ñëpp ñu taxawandoo di jaamoo sunu borom jaamu gu sell loola lu dolli sunu borom lu tolloog boo cappee puso cib ndox génne xaw ma toq laa koy tuddee xaw ma copp laa koy tuddee copp su sew soosu di génn nga xam ne matul sax aw toq loolu du dolli suñu borom dara mu tegaat ci ni mbooloo mu doy noonu góor ñaak jigéen ña mag ñaak ndaw ña nga xam ne place man mën a xaj yàlla rek ko xam ci rëyaay bu ñu dajaloo woon ñoom ñëpp ñu lànkal suñu borom di ko moy loolu du wàññi suñu borom lu tolloog copp su sew soosu nga xam ni puso boo ko tàbbalee ci ndox moom lay génne allahu akbar ñoom ñëpp mbooloo moom bu ñu dajale woon ku nekk ñaan sa soxla sunu borom ni yéen ñëpp mën naa ne may seen soxla ba noppi te du wàññi sunu borom ca lam yore dara sunu borom mu ni ca jeexintal xadis mu ni innama hiya amalukum xam leen ne li ngeen di jëf seen jëf la seeni compte lañ leen fa tegal ku ñëw ba àllaaxira nag fekk sa compte fee sa ku yiw yëgal ne yaa ko fa def sunu borom jàppale la waaye ku ñëw ba àllaaxira fekk fa compte bu fees ak bàkkaar yëgal ni yaa ko fa def suñu borom seetaan la loolu nag ku ko yëg dana tax nga daal di gën a góorgóorluwaat ci yiw wa ngay yóbbante bàyyi tamit safaan ya nga xam mooy dem kon in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha sa borom yàlla ganiyun ankum mooy dafa oomal soxlaalu leen dara te loolu du ko wàññi dara ndax sunu borom bokk na ci ay turam mooy al gani mooy ku oomal léeg-léeg da ngay gis ñuy wax ni diw daa oomal déedéet yàlla mooy ku oomal diw dafa oomal loolu baat bi wolof di jëfandikoo foofu dafa juum ndax al gani mooy kuy tekki ku oom te ku oomal ci melokaani sunu borom yi la bokk doomu aadama nag sunu borom mën na ko mayus lëf mën naa am nag alal am alal ak amus lëf ak amus tuut bokkut ak oomal ndax ki oomal mooy koo xam ni ñàkkul dara te soxlaalul kenn leen ñaari ture ngi alxani mooy ku oomal koo xam ni ñàkkul dara alqayyum mooy koo xam ni soxlaalul kenn leen lépp la mënal boppam alqayyum yaani alqaaidu bi nafsi alxani yaani dul xina al mutlaq mooy dafa oomal ba ñàkkul dara moom suñu borom suñu borom mu ni wala taziru du yenu waaziratun aji yenu ah moo ci topp waaw wala yarda suñu borom du kontaan du gërëm li ibaadihi ñeel ay jaamam al kufra ñun ak kéefar suñu borom gërëmul ci jaam yi ñu làmboo melokaanu yéefar lu tax loolu mooy suñu borom dafa am yërmande ci ñun yërmande moom suñu borom yërmande moo juutu meram ak sàññam doomu aadama ci suñu borom daf koo yërëm ndax yàlla moo ne allahu latifun bi ibaadi ku am ñeewante la ak cofeel ci ay jaamam kon yéenewu leen mbugal moo tax mu ne wala yarda du gërëm al kufra kéefar li ibaadihi ñeel ay jaam wala yarda li ibaadi al kufra wala yarda al kufra li ibaadi foofu di nga gis ni kon nit ñi su fekkee ñàkk nañoo topp suñu borom ñu moy ko loola wàññiwu ko dara waaye nag suñu borom bëggeewu ko noona ndax la mu bëggoon ci ñun mooy ñu góorgóorlu su ko defee mu yërëm ñu loolu nag di nga ci gisee comme yërmande goo xam ne borom jaam ñi am na ko ci ñun yonent ci yàlla bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaay juy nàmpal perantal ni mu amee yërmande ci doom ji yàlla moo ko yërmande ci jaam ñi suñu borom am na téeméeri yërmande juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent ma nga mu denc fa moom di xaar àllaaxira gis nga benn bi mu jot a wàcc ñun ñii ci la ñuy yërëmante même mbaam mi nampal doomam wala fas wi ba néeg koo joggi sax yent yàlla mu ni ci la koy yërëmee ci benn boobu allahu akbar benn boobu sunu borom ci la defee ni ma ni kuñ yërëme rab yi ci la ñuy yërëmante nit ñi ci la ñuy yërëmante jinne yi ci la ñuy yërëmante ci benn boobu kon bu ñu demee ba àllaaxira mbokk yi jàpp naa ne bu suñu borom ñuqee juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent àjjana war a mën a mel ni mel na maanaam bu demoon ba àllaaxira suñu borom ñuqi génne juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ma ne àjjana nun la wax ni na la mel rek kon war na nee mën a mel suñu borom subhanahu wa taala mu ni wala yarda du gërëm li ibaadihi ci jaamam ñi alkufra kéefar foofu tamit dafay saxal suñu borom melokaanu rida mooy day gërëm day kontaan moom ngay gis radiyallahu anhum wa radu anhu laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara gis nga ar-rida mooy gërëm mooy yàlla dafay kontaan di gërëm bu ndee ba àllaaxira ña tàbbi àjjana sunu borom mu ne radiyallahu anhum wa radu anhu mu ne dalika liman xasiya rabba kon arrida walsaqat walgadab walajab waldaxik yii yëpp ay xeeti melokaan la yoo xam ni même bu dee da ngaa xam ni melokaani nit la bu mu tee nga jàpp ni melokaani sunu borom la maanaam sunu borom yooyu ay melokaanam la léeg-léeg ne doomu aadama jafe-jafe bi muy am mooy bu ñëwee yàlla reetaan na ngaa di xalaat nit ku reetaan ahlu sunnati wal jamaa soo gisee ñu nekk ahlul wasat ci mboolem kuréel yi ndax ñoom buñ nee yàlla reetaan na dañuy jàpp ne yàlla reetaan yàlla mu reetaan nag bokkut ak nit ku reetaan ndax suñu borom dañi laysa ka mithlihi shay'un dara melul ni suñu borom nga ne ah yàlla reetaan na nga ne waaw reega nu mu ne dama ne dara melut ni moom reetaan yi nga xam yépp boo ko dajalee mu ne la dama ne dara melut ni moom est ce que du nuroog kon muy ne damay dara melut ni moom ba image boo doon andi nga yàq ko ni kon melut ni moom mu ñu la wa huwa samiu albasir moo ne day dégg day gis de jàpp naa ni borom xel mu ne boo jël ab mbir ni ko dara ci àddina melut ni moom daqal ko mboolem melo melo wuñ ko mën a jox ba noppi nga ni ko day dégg day gis defe naa moom bu dee borom xel la waratu la mën a laaj dégg nu mel nu ndax comme jox nañ image yi nga xam yépp nee nañ la benn nuróowul ak moom la muy wane mooy kon déggam nga ak gisam nga kat nag xamuñ dégg ak gis du mel ni moom kon sunu borom saxal na ci boppam ab mer ah am rëbb ah laanahum allah ghadiba allahu alayhim ah saxal na ci boppam mer wallahu غضب الله عليهم سغل بم كونتان ak bëgg wallahu yuhibbul muhsinin ha ak yeneen yeneen yëf yoo xam ne sunu borom saxal na ko boppam xeeti melokaan yi nga xam ne nag sunu borom daf koo saxalal boppam ahlu sunnati wal jamaa dañuy wax ni nit ki da koy saxalal sunu borom te yam ca maanaam yam ca mooy yàlla kontaan na nga ni kontaan na nu mel xaw ma sunu borom gis na gis na dem leen maa ngi ànd ak yéen maaya mooy mi ngi ànd ak yéen ndax jëmam jëla déedéet loolu la yonente bi saxal alayhi salaatu wasalaam kon yii xeeti melokaan borom pas-pas bu set mooy ki nga xam ne da koy saxalal suñu borom comme na ko suñu borom saxalee boppam kon wala yarda suñu borom du kontaan du gërëm li ibaadi yi ñeel jaamam yi al kufra ak kéefër wa in tashkuru bu ngeen ko gërëmee nag bu ngeen ko santee yardahu lakum sunu borom dana leen gërëm kontaan ci yéen asukkur mooy sant waaye mooy gërëm dafa am ñaari baat ci baati arab yi yoo xam ne dañoo wuute benn bi mooy asukkur benn bi mooy alhamdu sant ak gërëm yàlla nag moom moo yayoo alhamdu xamdu kenn du ko defal doomu aadama déedéet da ngay dégg nag ñu ne alhamdu cant dëgg la làkk yi nag léeg-léeg day tekkee baat bi la tolloog lam ko mën a tekkee waaye fi l xaqiqa ci làkku arab surtout ci buntu pas-pas lan foog ni loolu lay tekki ba tax nit mën koo bokk ak suñu borom du loolu loolu mooy nag sukuru ci boppam mën nañ koo defal nit mooy nit ki defal la dara olof nag danaan sant di wax gërëm yow de sant naa la gërëm naa la dëgg la waxin woowu tekkiwul ni kon cant gi dañ koy defal nit ki defal ko suñu borom waaye baatam alhamdu wolof ci boppam moo amut nu mu ko mën a tekkee nu dul sant waaye bu fekkoon wolof am na baat bu mu ko mën a tekkee bu dul sant ko du tekki sant ndax alhamdu cant la te cant ci wolof day tekki ñu defal ko nit mën koo defal ku dul nit waaye nag alhamdu yàlla rek lañ koy defal alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi fatir alsamawati wal ard walahu alhamdu fi alaxirati wal ula ها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ها وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يي خيتي تانت ييب سونو بروم دنج كوي ديفال شكر تيمي دنج كوي ديفال سونو بروم نخ شكر نك اعم من الحمد وتخ الحمد اعم من الشكر نخ شكر كولا ديفال دارا nga koy def شكر muy gërem kenn du ko defal ku la defalul dara loolu mu ci nattu doom nattu wolof bi ñuy làkk sax xam nañ ko ci ah man de dëgg dëgg sa waay maa ngi lay gërëm nag daa fekk daan nit di nga jékki-jékki rek daggee ca làng nga sa waay maa ngi lay gërëm loolu moom ci sunu aada ameewut noonu li am mooy nit day def dara nga doog koy gërëm kon alhamdu aamu min asukru hamdu moo gën a matale sukru ndax hamdu dañ koy defal ku def dara ak ku deful dara moo tax suñu borom yeyoo ko ndax même fi nga toog da ngay jékki-jékki ne alhamdulilahi rabbil alamin te dara lu yees loo yëg lu sa borom def amul waaye nag ci def la dëkk moom suñu borom moo tax xamdu moom rek moo ko yeyoo ñaar yi nag yu mat a ràññeet la la ah cheikh al islam ibn taymiya rahimahullah boo delloo ci majmuatul fatawa am na ci jukki boo xam ni masala mi def na ci ay safahaati safahaat di ko leeral di wane farq bi nekk diggante xamdu ak sukru ak sukru dañ koy def ngir ki la defal dara moo tax i'malu ala daawuda sukra kon ndekete sukru du yam ci làmmiñ kese ndax dañ koy jëf moo tax mu ne i'malu ala daawud jëf leen yéen ñooñ daawud sukran luy wane ni kat yéen gërëm ngeen seen borom ndax suñu borom lañ leen defal ci ay xéewal gisoon ngeen ci tafsir yi passé kon suñu borom ne wayin taskuru bu ngeen ko gërëmee yardahu lakum suñu borom dana kontaan ci yéen maanaam dana leen ko delloowaat sax lak faf lay doon moo tax nit ki bu ko yàlla defalee xéewal dafa war a sant suñu borom yàlla nee na subhanahu wa taala fadkuruni adkurkum dee leen ma tudd di ma fàttaliku ma di leen tudd di leen fàttaliku waskuru li dee leen ma sant wala takfur bu leen ma weddi beneen aaya mu ne la in shakartum bu ngeen ma santee la azidannakum ma dolli leen xam nga ne wax dëgg yàlla ki la jox ni la boo ma gërëmee ma dolli la jàpp naa ni ngërëmaande yomb na lool sant yomb na lool nga defal ko suñu borom moo tax doomu aadama bëggee xéewal yi ko suñu borom di defal mu dolleeku su ko suñu borom defalee xéewal dafay sant doomu aadama nag day foog ni mi ngi sant fekk santut ndax léeg-léeg mbir am nga ne alhamdulilahi rabbil alamin rek yam fa déedéet maanaam cant gi léeg-léeg nit ki da koy jëf yàlla bu la defalee xéewal na feeñ ci yow na feeñ ci jaami yàlla yi na nga dimbale ña nga tane na nga dimbale ña nga ëppalee bul jànni ña nga xamante ni ñoom dañoo doyadi yooyu yëpp ay xeet yëpp la yoo xam day dugg ci buntub sukkur muy buntab sant moo tax bokk na ci turi suñu borom yi ashakur ah bokk na ci suñu bor turu borom yi ah alghani ku oomal ki ah ak yeneen yi nga xamante ni xam nañ ko ci turi suñu borom yi suñu borom mu ni wala taziru du yenu waasiratun aji yenu ëllëg wisra uxra bàkkaaru kenn alaxira amul kenn koo xam ni dafay ñëw di yenul kenn ay bàkkaar loolu amu fa déedéet amu fa de sunu baram mu ni wa in tadcu musqalatun ila ximliha laa yaxmil minhu shay koo mën a woo pour muy gàddul la as lëf ci say bàkkaar ak kum mën a doon du la mën a yenul dara walaw kaana da qurba donte dalaa jege xoolal foofu waxul sëriñ waxul taalibe waxul ku la jege la wax ndax am na fu nu toll foo xam ni ka la jege ci wàllu deret rek moo la mën a dimbali gis nga léeg-léeg nit mën naa nekk ci barab mel nen ñuy sonn ca moom waaye gis nga feebar dana toll foo xam ni mbokki deret rek mbokki deret rek tàmbale ca yaay baay soxna doom day toll foo xam ni maanaam nit ñi ci boppam dafa am yenn xeeti doyade yu am ci doomu aadama yoo xam ni nit dootu ko nangoo dékkootil kenn ku dul mbokk ma ko jege moo tax buñ demee ba ci suul nag sunu borom mu ni wa ulul arxaami suul miraas donn ah ak faatu ah wa ulul arxaami baaduhum awlaa bi baadin fi kitaabillah mbokkum deret nag léeg day toll foo xam ni mooy gën a sës keneen ku dut moom sunu borom mu ni koo woo lu mu jege-jege walaw kaana daa qurba du la yenul dara ci say bàkkaar alaxira mbokk yi amul kenn koo xam ni day yebbi ci aw yiwam di may kenn loolu amut alaxira amul kenn kuy yebbi ci ay bàkkaaram di ko yenn kenn déedéet loolu amut loolu moom bokkul ci suñu borom programme ci alaxira la fa am kay mooy kenn ku ñëw say bàkkaari bopp yaa koy yenu wa hum yaxmiluuna awsaarakum ala duhurihim sunu borom ne ku nekk rek yaa ngi ñu ngi la yen ab saako nga sa digg ginnaaw yaa ngi yenu loo xam ne mooy say bàkkaar ba tax mu ne ala dama ni saa bon na maa yaziruna la ñuy yenu kon wala taziru du yenu waziratun aji yenu wisra uxra bàkkaar yi kenn sunu borom ni thumma ila rabbikum marjiakum ginnaaw loolu nag ci seen borom ngeen di dellu fa yunabbiukum mu xabaare leen bima kuntum taamaluuna ci li ngeen doon jëf ci àddina allahu akbar li doon jëf yépp mbokk yi muy tàmbalee ci man ak yéen nanu bokk fas ni sunu boroom amut lenn loo xam ni ump na ko ci li ñuy wax ak li ñuy jëf gis nga al aqidatu saxiixa saa bu amee ci nit ki dafa bokk ca la muy fas mooy nit ñi laa mën a làqu nëbbatu leen waaye mënuma nëbb suñu borom alaysa allahu bi aalama bima fi suduri alaalamin xanaa du yàlla moom mooy ki nga xamante ni moo gën a xam li ne ci biir dënn yi wa asirru qawlakum awi jaharu bi wax ca kaw ak wax ndànk kooku nit ñi lay concerné ndax ñoom boo waxee ca kaw ñu dégg nga wax ndànk duñ dégg waaye yàlla moom loolu du mbiram ndax moom innahu alimun bi daati sudur moom la ca dënn ya nga xam ne làmmiñ génneegu ko loola moom xam na ko ah sarax mu ne wa in tuxfuuha wa tu'tuha alfuqara sunu borom xam na ko gis na ko fa huwa xayrun lakum looloo gën ci yéen in tuxfu maa fi sudurikum li ngeen denc seen biir dënn yi su ngeen ko nëbbee aw tubduuhu wala ngeen feeñal ko yaalamuhu llahu loolu yàlla moom xam na ko gis nga de innahu alimun bi daati sudur aji xam ne ne ci biir dënn yi moom suñu borom yuqallibu alquluba kayfa yasha moo tax mooy muqallibu alqulub alaxira nag mbokk yi nit ki dafay fekk téere boo xam ne laa yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa axsaa loo def lu mu tuut tuut tuut tuut lu mu sew sew sew sew téere jëf mi bind na ko borom bi subhanahu wa taala mu ni ah yowma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muxdara keroog ngay fekk li nga defoon ci aw yiw lépp dara du manque wala yazlimu rabbuka ahadan tegal la fa bàkkaar boo defut tooñ la nga dem ba yegg fekkoo fa yiw wa nga defoon tooñ la sunu boromu ni ñaari yëpp du ma ci def benn gis nga de la nga def ci aw yiw da nga koy fekk xaadira mu teew muxdara ñu teewal ko mu ne tax lool naat lool neex xool ne xamoo wa ma amilat min suin jal bi nga doon def ci ay bàkkaar ah yawaddu law anna baynahu wa baynaha amadan baida nit kaa ngi mbébét ak a neexoon mu sori ma ka bu'dal mashriqayn fa jant bay fenkee fa jant bay sooyee niñ soriyoo da ngay bëgg yàgg say bàkkaar ngeen soriyoontoo noonu gis nga ne sunu borom subhanahu wa taala mu ni wa nadau almawasina alqista li yawmi alqiyama ñu daal teg nag balance bi nga xam ni ci maandute la tege fala tuzlamu nafsun shay'a amul benn bakkan boo xam ne dañ koy tooñ wa in kaana mithqaala xabatin min xardal li nga jot a def bu tuuti woon ba tol ni pepp suuf atayna biha du tee danañ ko indi wa kafa bina xaasibin yii aaya mbokk ji jàpp naa ne aji gëm yàlla ju ci xalaat ju nekk dana xoolaat bu baax li muy def lépp lu nar a waxati balaa moo génn ci gémmiñ gi dana ko toggaat bam ñor log-logal ko ci làmmiñ bi doog a génn saa buy jëf dana xool li muy jëf waaye saa buy defit dana xool la muy def moo tax sunu borom ne bu ngeen yegg si àllaaxira fa yunabbiukum seen borom dana leen xabaare bima kuntum taamaluuna mboolem li ngeen doon jëf ci àdduna innahu moom sunu borom kat alimun aji xam la alim basir xabiir gis nga yëpp benn bu ci nekk tur sunu borom la benn bu ci nekk day làmboo ism ak sifa benn bu ci nekk day nekk sixa mubaalaxa te loolu na suñu borom rek mooy ko yoyoo moo tax walagul asmaul xusna ah wa sifatul ula alimun aji xam la moom suñu borom bi daati sudur yi nekk ci biir dënn yi jàpp naa ne ki waxagut nu ni ko xam nan li nga nar a wax kooka jekku nañ ko torop moo tax léeg-léeg man ngaa ñëw nga wan nit ñi lu wuuteeg li nga fas ci sa xol kooka sa bopp ngay nax rek naxoo kenn wala nga ñëw di di di di jéem a sérieux sérieux lu fekk sérieux woo yuxaadicuuna allaha walladina aamanu sunu borom wa maa yaxdacuuna illa anfusahum wa yashcuruun di jéem a sérieux sérieux lu sunu borom ni sa bopp ngay nax rek da ngaa yëgul rek yàlla nga yaakaar ngay nax de naxoo yàlla de ndax ki ngay nax day fekk da nga ko mën a dribble ba jàll te sunu borom mënoo jaar fenn lu dul xam na sa lépp moo tax nit ki fu mu mënti toll dafa war di ñaan boromam ndimbal mu dimbale ko dëgëral ko jàppale ko ba lépp lu muy def mu def ko ngir yàlla te ci sedd yàlla subhanahu wa taala sunu borom ni wa ida massa bu laalee al insaana doomu aadama durrun ab lor wala ab jafe-jafe dur day tekki feebar dur day tekki jafe-jafe ah day tekki feebar anni massaniya dur wa anta arhamar rahimin foofu feebar la dur day tekki ay problème wa ida massakum durr fi lbahri dalla man tadcuuna illa iyahu jafe-jafey gaal gaa ngi weng di waaj a daal dalla sunu borom mu ni puus na sànku na xalku na kutus na man tadcuuna ku ngeen doon woo allahu akbar illa iyahu ba mu des ki ci asamaan dalla man tadcuuna illa iyahu loolu nit ñëpp ko xam bu ko defee sunu borom daal di indi ak xeetileem doomu aadama delluwaat ci caay-caay gam newoon kon ak dur day teg ay problème di teg ay jafe-jafe di teg feebar lépp looy teg jafe-jafe yooyu bu leen ci mën a gaar fii nag moo gën a matale dur yooyu wax dur ba ca ayub feebar la bale ci géej ga ay problème la bii nag dafa ëmbaale yépp ak durru mooy bu mu ca mën a doon bu leen gaaree kum gaar sunu borom mu ni daa day ñaan rabbaku sunu borom yàlla mu nii ban ilayhi nekk aji wammatu aji jéng jëm ci sunu borom doomu aadama saa bu amee problème rek sellal loolu moom waxuma lay jullit ñi waaye yéebari sax dañ koy def ndax sunu borom ba muy wax ni saa bu leen musiba dikkalee ci géej gaal giy daw ah waljanayna bihim bi rixin tayiba jaatha rixun aasif wa jaatum almawju min kulli makan ah loola yéefar yi sax dañ caa bokk saa boo demee ngelaw liy baaje gaal gi ma ngay taw affaire bi lëndëm lool baggi géej gi dóor ci wet gune nga yaakaar ni tey moom àllaaxira ngay gont ji sunu borom ne daawu allah muxlisina lahu din foofu moom lu waay takkoon da nga ko fàtte ku waay yaakaaroon mu génn ci sam xel ñu daal di ñaan yàlla muxlisina lahu din la in anjaytana min haadihi xawma ban waay yàlla bii moom boo jiqitilee lanakunanna min ashakirin tey rek lan lay sant sunu borom xam na ni bu leen xittilee du tax ñu sant sunu borom te du tee dana leen xittile loolu mooy yërmaande dafa am yoo xam ne doomu aadama da koy def fekk dafay jàpp ni moom mën naa nax suñu borom mën naa nax suñu borom fekk doomu aadama dafa doyat bi allahu akbar koo xam ne li ci sa biir dañ lépp moom suñu borom xam na ko kooku mënoo koo dribble fenn doomu aadama léeg-léeg day wax ay wax yoo xam ne day jàpp ne fi ne mën naa nax su koy nax yow am na nit ñoo xam sax mënu leen nax di fab bay nax sa sa sa borom sa bopp ngay nax wa ma yaxdauna illa anfusahum sa bopp ngay nax moo tax léeg-léeg nit ki li ngay wax nit ñi bokkut ak li nga fas ah loola sa bopp ngay nax rek loolu la gars yi di nettali suñu mbokkum pël bi moo doon wax ni daa feebar mu am benn doom doom jee ko doon sàmmali mu jaaxle ci feebar bi lool feebar bi jaaxal ko lool mu dégg waaraate ñu ne alquran dégg ci dugal sa doom da ngay def nii da ngay def naa mu daal di niser mu ni gis nga bu xale bi wéree dinaa ko yóbbu ca daara ja mu jàngi jabar ji ne ko ah waa nijaay kon su boobaa kuy sàmmi nag yi mu ne ko noppil damay nax yàlla subhanahu wa taala xam nga loolu moom daanaka jaahil dëgg moo koy wax ndax moom la muy wax nit ñi ak lam fas bokkut lam fas mooy mooy bu fee mbir mi weeree mu delluwaat di ko sàmmali amaa li muy wax ba nit ñi di ko dégg maanaam loolu ak doyee di dëgg dëgg da cee nekk nag ndax yow ki nga yaakaar ni moom ngay ñaan moom mi xam lépp boo waxee lii xam na li ci sa dënn subhanahu wa taala moo tax sunu borom mu ni ida massa su gaaree al insaana doomu aadama dorrun ab lor daa dafay ñaan rabbaku boroomam munibat ilayhi jéng jëm ci moom day sànn nga gis waaj bu daawul julli guddi bu commencé julli guddi daawul woor bu commencé woor mosoo ko gis jàkk ñu mu wut jàkk fii nag moom bu dee suñu société bi moom day daal di wut te daal di wut lan ngandam kurus wax nga dëgg de wax na dëgg de loolu mandarga la boo xam ne maaruf la moom da ngay gis mu daal di wut ngandam kurus nag léegi commencé di tepp teppal nga jàpp ne waa ji day sellal fekk déedéet sellalul day seetlu suñ borom maanaam day seetlu suñ borom ngir suñ borom bu ko joxee rek mu dellu salam neew mu ne yàlla dem pour wane ni mu amee yërmande mënoon naa téye yëfam mu ni waa ji gëmut li muy wax waaye suñu borom da lay yërëm ngir mooy borom yërmande waaye da lay yërëm ngir da lay may chance ndax kat amaan na boo xalaatee ni ki nga ñaan moo la may nii rek waaw ak bari mos doomu aadama toll ci ay tiis ak i jafe-jafe mu ñaan sunu borom sunu borom may ko yu mel noonu dañ ciy nekk yu bare bare bari yoo xam ni ah ba tey nee naa leen ñaan yàlla tey tey mu nangu ko tey tey léegi ba léegi mi ngi am démb ci bëccëg bi dars bi noppi maa ngi ciy waxtaan ak menn mbokk mu di ma nettali fële fa Robert ya nekk bi ma nettalee xisas yooyu ma ko doon wax ba noppi mu ni dafa am seen benn waay boo xam ni dañ koo jàppoon ci digg àll bu waa ji moo ko nekk ci bi waa ji nee na bi ko Robert yi jàppee ñu daal di koy yeew ni ko yow dañ lay rey yow moom sayee dañ lay rey fekk ndeke mas naa fekkee benn waaraate ñuy wax ni ñaari ràkk boo ko defee nga ñaan yàlla yàlla da lay may mu ñaan leen ni leen ndax mën naa def ñaar rek gars yi ni ko mu koy defal waaye afat da ngay dee léegi mu def ñaari ràkk ba noppi mu talaay loxam di ñaan ci joolaa waaye li muy wax mi ngi koy wax ci kaw mu ne yàlla am na ñaan yoo xam dañ la koy ñaan nga tinu ci saasa am yoo xam ne dañ la koy ñaan nga yeexantalu bu tey bi moom bëgguma nga yeexantalu dama bëgg nga ñëw léegi léegi léegi nee na bi muy wax loolu gaa yaa ngi koy dégg xam naa wax ji dafa reelu gaa yi di ree ba daanu ci suuf maanaam reetaan yooyu ñu koy doon reetaan moo nekk sababu ñu bàyyi ko ni ko demal te dañ ko naroon a rey waaye li ñu wax léegi dañ lay ñaan nga yeexantalu tey moom bëgguma nga yeexantalu dama bëgg nga ñëw léegi léegi léegi léegi xam dëgg de léeg-léeg nga ñaan suñu borom mu yéex a ñëw waaye léeg nga ñaan ko mu ñëw fa saasa léegi xool ni ko yàlla xiitalee ni mu simple maanaam waxam ju reelu jooju la gaa yi doon ree ba far nag bàyyi ko mu dem fekk dogal suñu borom dikk na ci loolu bu dee bu dee kon ñaan suñu borom doomu aadama ci toroxlu gi muy toroxlu comme ni ñu ko waxee ci dars bi base sabab lay doon suñu borom nangul doomu aadama nag melokaanam mooy bu jaaxlee mu ñaan suñu borom mu niban ilayhi dellu ca moom waaye summa ginnaaw ida xawalahu nicmatan minhu suñu borom bu ko soppilee yëf yi indil ko xéewal gu bàyyi koo ca moom nasiye nga gis mu commencé fàtte nag maa kaana yad'u ilayhi lam doon ñaan jëm ci suñu borom bu daan julli bàyyi na julli ga bu daan woor bàyyi na woor nga gis ngeen période su examen gis ngeen période su examen élèves yëpp daanaka dañuy julli jàkka ja ngay gis gis nga de doomu aadama yi saa bu ñu jaaxlee da ngay gis ndeysaan yatadarrauna ila allah bu ñu jékki-jékkee nga dégg ñu ne jant bi dañ koo jàpp wala weer bi wala nga dégg ñu ne musiba am na barab sàngam wala nga dégg ñu ne tremblement de terre moo am genre yu mel noonu da ngay gis nit ñi di toroxlu seen borom subhanahu wa taala waaye toroxlu googu ak a neexoon mu nekk luy continuer moom daanaka jaamu yàlla ak Sénégal ak weeru koor loolu la nuroon nga xam ne da ngay gis nit ñëpp ay sellal waaye bu koor gi jàll ñu nekk ca lañ newoon loolu amul njariñ li am njariñ mooy doomu aadama bu torox loote xoolal ki nga xëttaliku ci moom ba mu xëttali la allahu akbar ñi nga yaakaaroon yépp dañ la ñaata yoonu doomu aadama yi nekk ci ay jafe-jafe te loolu ñun ñi ñëpp lay gaal ngay toroxlu benn xeeti toroxlu boo xam ni yow sax xam nga ni boobu bu continué woon di nga tàbbi àjjana xam nga ni bu continué woon nga tàbbi àjjana ndax yaa ngi foo nekk sa xel mi ngi ci sa borom yaa ngi ñaan say asgar suba ak ngoon dara dootut manqué ci alquran bis bu nekk nga am ci sa lëf guddi moom sa waay yow sonore sax bu sone woon doo yeewu waaye balaa heure yeewu jot yeewu nga ngir bëgg def ñaari rakk mooy ak soxla su soxla gis nga toroxlu sunu borom bépp xeetu toroxlu bu ko defee ba sunu borom daal di indi xéewal ba rek ndeysaan yooyu jigéen ñi nga gis ko ci toolu ci am doom di wax yàlla tiifu di wax lu lu mu xam turu yàlla wu mu xam dana ko tudd bu ca paree daal dinay nekk ca lam nekkoon nga gis koo xam ni feebar bi mu feebar suñu borom xettali ko ba mu wér ah aka neexoon mu def ni ayuba ni'mal abdu am loolu innahu awwab mooy nekk jaamukatu yàlla tigi nisir sax donte nisir borom xam-xam yi duñ ci soññe ci buntu ndax day mel da ngay santaas suñu borom yàlla ba ma defalee nangam ma defala nangam moo tax nisér moom daanaka soññewuñ ci islam soññewu ci donte nag lan ko soññe mooy bis boo ko niséré rek bu la yàlla mayee defal la nga waxoon sunu borom mu ni summa ida xawwalagu saabu sunu borom duppariñee yëf yi niamatan di xéewal min gu bàyyi ko ca moom nasiya nga gis nit ki fàtte ma kaana yad'u ilayhi lam doon ñaan min qablu ci lu yàgg wa jaala mu daal di def lillahi ñeel yàlla an daadan wutal ko ay ndend hey ay ba ma ci tolloo ba ma seeree sama ndogo bi loolu nga dégg nit ñi di wax doomu aadama ku ñàkk jom la ñi ci yàlla dimbaliwut lool ñàkk jom la yow da ngay toll foo xam ni te kat oto bi moo naan xaas di wëndee luy bëri nga gis ku waay doon tudd da koy bàyyi maa la ko wax ba ca njëkk mu rëccale la nga xam ne mënoo koo tey nga ni diw du tollal ci kuwaat laa ilaha illa allah wallahu akbar façon tur yàlla wu nekk danañ ko tudd waaye gis nga doomu aadama ni mu ñàkkee jom bu noppee mu ne hey kay bi ma jàkkaarloog jiw dégg ci rajo bi benn waaye mu ne xaw ma daa am problème mu am benn sëriñ bu nekk ci photo bi mu jàkkaarloog ma mu ne ko yow yaa ma sa wax ne boo rusul woon xaw ma sa bàyyi ku la woo nga wuyi ko mu ne ma wax ak moom mu wuyi ma ci photo bi ma ne kon we kon wedd na lam doon wax ndax moo waxoon bu rusul woon nangam du def nangam te mi ngi ni def na ko tey segam loolu am na laa wax rek bu amoon sax laa wax loolu dafa weddi boppam muy benn ñaareel bi mooy innaka la tusmiu almawta wala tusmiu summa dua même bu fekkoon armelam nga ko fekk sax boo ko wooyee du la wuyu déedéet wa ma anta bi musmiin man fi lqubur in tad'uukum la yasma'u du'aakum walaw sami'u mastajaabu lakum ndax lañ nekk doy na leen sëkk soxla wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum alaxira loo ni ko yaa ni meloon mu ni la meluma ni waxuma la ko sunu borom mu ni wala yunabbi'uka mithlu xabiir kenn du la xamal la fa xew ba mu wér ba mel ni ki xam kum ko muy sunu borom gis nga de doomu aadama saa bu jàqee mbokk yi ci yàlla te kat nag bàyyil yépp ñu waxee xel dafa bokk ci fitra bi yàlla defal doomu aadama mooy nit saa bu problème ne rës ci yàlla lay jëkk a dem loolu moom yàlla ko defal ñépp doomu aadama kay mooy goree di goree di boppam wéer ca keneen yàllaa ngi ci asamaan ak am problème sa xel dem ci yàlla borom xam-xami aqida yi ñu ne loolu suñu borom mooñee doomu aadama moom kay da nga koy nangu baa nga bañ ko rek waaye moom lañ la mooñee yow suñu borom mu ni nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qabl lam doon ñaan lépp mu ba ko fàtte ko wa jaala lillahi andaadan mu dàmbalee wutal yàlla ay morom li yudilla an sabili ngir sànke ci yoonu suñu borom bi maanaam moom du ca jaar waaye ma ngay influence ay nit ba ñoom it duñ ca jaar hee diw kay moom ba ma ca tolloo ba ma ko sikkaree juróom ñaari yoon rek la affaire yi daal di baax allahu akbar yéen ci yàlla bi dañ so toog yàgg ma ne la ahada asbara ala allah ku dàq muñ yàlla gisuma ko wallahi wax na dëgg ku dàq muñ suñ borom amul xoolal doomu aadama yi gore di geeg ñàkk jom geeg ñàkk teggin gi yépp téewul rek wërsëg wi ñëw ba léegi téewul ngelaw li mënoon na koo téye mu ne demal ci waa ji nga yaakaar moom na la jox ngelaw nga lekk ba nag mu ne waa na toog foofu na la ko reesalal moom foofu lay nëpp bu sooru yàlla kooku mënu ci dara ndax moom boo amee problème mu fees reesal sax avion lay war dem France moom mi nga yaakaar ne boo lekkee mu reesal boo amee problème mu reesal day war avion dem France allahu akbar daa am yoo xam ni maanaam yàlla tegu ko ci loxol kenn da koo yoral boppam ndax bu ko tegoontul wërsëg dundal raye dekkal ngelaw li waaw yooyu bu ko sun borom tegoon ci loxol doomu aadama kon kenn du xam addina bi lu muy safati ndax daa am yoo xam doomu aadama lu mu ëppalee moromam rek wan ko ko sunu borom téyel ko boppam sunu borom ni qul waxal kooku ni ko tamattaa beewlul bànneexul bi kufrika ci kéefar gi nga nekk waaye xalilan diir bu gàtt ndeysaan dund gu gàtt nga yam innaka yow kat min ashaabi naari ci waa sawara ngay bokk koo xam ne bu jekkoo fàtte yàlla bu jàqee topp yàlla sunu borom mu ne ko bégal ko ne ko innaka min ashaabi naar yow ci waa sawara ngay bokk tamatta bi kufrika mu ni xalilan darhum yakulu wa yatamattaau wa yulhihim al amalu fa sawfa yaalamun bàyyi leen ñuy bànneexu ah di lekk ka naan ah ak di reebe rek di mébét di teg fa sawfa yaalamu na lañ xam xul mataau dunia qalil diiru addina bi lu gàtt la wal axiratu xayrun liman ittaqa al axira gën ñeen ki ragal suñu borom yàlla suñu borom boole ñu si ñooñu kon suñu borom ni qul wax ko ni ko tamatta da ngay beewlu bànneexu bi kufrika ci sa kéefar gi xalilan as ndiir innaka min ashaabi naar ci waa sawara ngay bokk mbokk yi kenn ku nekk ci ñun de bu toogoon mu xalaat bisab sukuraat nga ni maa ngi nii tëdd nag nga xalaat nag li nga wees ci sa gannaaw ci ngay xam ne ndeke àddina dara moo ci amul solo loolu topp yàlla sa wata bi dootoo ko warati caabi yëngatu muy dégg rek ngay dégg waaye dootoo ko laalati sa dàll yi dootoo ko solati sa yére yi ya gën a baax dootoo ko solati lal bi da nga koy wàcc kër gi dañ koy génn te moo ne yaa ko moomoon kat de allahu akbar xoolal li nga doon li teye nga dox sa diggante jaamu yàlla lépp ngay teqalikool moom moo tax xarit bi gën a wóor mooy say jëf yu baax moom daa gore torop foo jëm rek mu topp la xarit bi gën a yées mooy say jëf yu bon ndax moom it dafa gore lool da lay topp ba biir bàmmeel moom it suñu borom mu ni am man huwa ndax waa ji nga xam ni xaanitun dafay toroxlul yàlla ommatul sunu borom di jaamu yàlla di rukoo ko sujud ana allayli ci diggu guddi gi saajidan léeg-léeg mu sujud wa qaiman léeg-léeg mu taxaw yaxdaru l axira mi ngi tiit bu alaxira taxawee man fan laa jëm wa yarju rahmata rabbi ma ngay yaakaar yërmandey boroomam mu tàbbal ko àjjana dafa mel ni dafa am lu manqué ci aaya ji loolu la nuru loo xam ne dañ koo nëbb mooy ndax kii dana yam ak ku melut ni moom déedéet loolu du yam sunu borom mu ni moo tax mu ni qul waxal ni hal yastawi ndax dana yam alladina yaalamuuna gaa yi xam walladina laa yaalamuun ak ñi nga xamante ni xamul comme ñooñu du ñu yam ñaar ñeet du ñu yam kama annahu la yastawi adulumaatu wala nuur wala alzillu wala alxaruur wala alaxyaau wala alamwaat ah tàngoor ak sedd keppaar ak naaj guddi ak bëccëg sunu borom mu ni comme du ñu yam ki xam ak ki xamut du ñu yam waaye kii toroxlul borom guddeeg bëccëg du yam ak ka nga xamante ni du ko def aaya jii de abdullah ibni omar ko jàngee da ni billahi aaya ji osmaana ko moom abdullah ibni omar loolu la waxoon waxoon naa ko ca tarbiyatu nafsi ala qiyami layl dani aaya ji giñ naa ni osmaana ko moom ndax moom daf doon fanaanee julli guddi dëgg la am nañu ko def ñeneen ñu dul moom waaye da caa gënoon a siiw te it bu nee asmaana ko moom da ca ëppale waaye nag al ibratu bi amumi lafdi laa bi xusuusi sabab mooy keneen ku def ni moom da nga cay dugg Ousmane ibni Affan ci jaamukati yàlla yi guddi yu gën a mag la bokkoon radiallahu anhu la waxkat ba waxoon daxu bi asmuta anwaan sujudi lahu yuqatau llayla ah tasbixan wa qur'ana Ousmane ibni Affan radiallahu anhu alquran da doon tàmbali alimamu zahabi boo demee ci seeru alamin nubala day wax ne alquran ji yépp sax naafilaa na ko ci benn guddi moom osman ibn affan radiallahu anhu wa arda kon sunu borom mu ni ndax waa ji nga xam ne dafay sàbbaal yàlla ci guddi gi di tiit alaxir di tiit mbugalum sunu borom waaye day yaakaar yërmande sunu borom moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa fekk benn waay buy sukuraat mu ni ko ah waa sa waay yow feebar métti na la naka mu naka yëf yi na ah ci loone ci wolof mu ne ko ci loone mu ne ko man de maa ngi nekk ci di tiit mbugalum sama borom te yaakaar yërmande yonte yàlla bi ne ko fii nga toll de ku fi masa toll ku ne boole ñaar yii bu faatoo tàbbi àjjana borom xam-xam yi ñu ne nag waaye bu nit ki dee dund day gën a rëyan tiit mbugalum suñu borom bu dee ba toll ci sukuraat nag foofa day gënale day ëppal li nga xam ne mooy yaakaar yërmande sunu ndax foofu moom yërmande nga fa war a yaakaar ndax te yoon da ngaa war a jëf moo tax ñun la tiital fii ne da ngaa toll ci buntu fayeeku yaakaaral ku la yërëm moo tax al muslim yatiiru bi janaahayn ñaari laaf ngay naawee benn laaf bi mooy di tiit mbugalum sunu borom benn laaf bi mooy di yaakaar yërmande sunu borom sunu borom muy kii def loolu ci guddi gi di jaamu sunu borom te xam ngeen ni lu rëy rëy rëy la yent yàlla bi nee na ah yàlla subhanahu wa taala dana waajal ay kër ca àjjana yu kawe yoo xam ni ña ko moom mooy ñi nga xam ne bu ñuy wax wax yu jub te baax la ñuy wax di wax wax yu rafet suñu amee kuñ gis ni aajo woon a lekk ñu dimbalee ko ci lekk waaye bàyyi ba nit ñi tëdd ñu jub di julli yent yàlla bi ni ñoom ñoo moom kër yooyu yan kër la mu ni kër la yoo xam ni ay vitrine la ko suñu borom def ay vitrine la ko def yoo xam ni da ngay gis la ca biir di gis li ci biti allahu akbar yoo xam ni dafa rëy lool rafet lool taaru lool melokaan wan ko melal moo tolloo la doomu aadama xam walillahi almasalul aala suñu borom mu waajal ko ñooñee nga xam ni bokk na ci mooy ñiy julli guddi yàlla suñu borom dimbali ñu ba yu sawarloo suñuy cër yombal nu jaamu yàlla gu mel noonu te nangul sunu borom ni qul waxal ni hal yastawi ndax dana yem alladina yaalamuuna gaa yi xam walladina laa yaalamuun ak ñi nga xamante ni ñoom xamuñu ñi xam ak ñi xamuñu ndax danañ yem déedéet duñ mas a yem comme ni nga xam ne laa yastawi alxabitu wa tayib laa yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun gis nga ñi xam ak ñi xamul duñ mas a yem aaya ji nag borom xam-xam yi dañuy wax ne ci aay yi gën a màgg ci wane ngëneelu xam-xam ca la bokk xam-xam day mbokk yi yàlla def na ci xéewal goo xam ni ku ko xamoon yow moom da nga jéem a bokk ci ñi xam donte ñëpp nag mënuñoo nekk borom xam-xam dinaa jéem a xam nag bokkut ak dinaa jéem a nekk borom xam-xam xam ak nekk borom xam-xam bokkuñu waaye nit ki bu mën a nekk borom xam-xam baax na su ko mënta nekk na nekk ndongab xam-xam mbokk yi xam-xam am nay ngëneel de ñu bare bare bari yoo xam ni doomu aadama bu ko xam dootoo ngéejooti wala ngay mbébétati am yenn ndomboy tànk ci àddina lu dul ndomboy tànk xam-xam maa la ko wax ndax alquran rek boo ko toppoon tey da nga ca fekk ay yëf yëfaan yu bari yoo xam ne da lay wan ni mbokk yi xam-xam lu bari ay ngëneel la li ma ci gën a yéem nag man mooy sunu borom dafa dem ba jàppe xaj bu am xam-xam mooy gën beneen xaj bu ne ci kaw suuf génn leen sax cadre doomu aadama yi defe naa yasalunaka maza uxila lahum qul uxil lakum tayibat wa ma allamtum min aljawarix mukallibina تعلمونهن مما علمكم الله من فكلوا واذكروا اسم الله عليه الله اكبر manam xam-xam dafa dem ba génn doomu aadama xaj bi nga xamee dañ koo jàngal xam-xamu rëbb suñu borom mu ne xaj bu mu dajalati moo la gën moo tax la koy topp ci barke mooy may nañ ñu ñun xaj buñ jàngal rëbb bu jàppee nga lekk xaj bu dul jàngal rëbb nag buñ ko jàppee doo ko lekk subhanallah xool xam-xamu rëbb waxuma la xam-xamu diine sax laa wax ñi ngi lay laaj lan moo dagan ci ñoom nee leen yu teeyi dagan na ak xaj boo xam ni ah da ngeen koo jàngal lu nuy rëbbee tuallimunahu da ngeen ko jàngal xam-xamu rëbb mimma allamakumullah ci leen yàlla jàngal ci nan la ñuy rëbbee mu ni su jàppee fa kulu lekk leen wazkuru smallah ci ngeen tudd turu yàlla xaj bi boo nee bismillah yebal ko mu dem lu mu jàpp bu ëndee dagan na nga lekk ko su dul loolu beneen xaj bu ëndi du dagan nga lekk ko jàpp naa ne loola rek doy na sëkk ci wane ne mbokk yi xam-xam lu doy la beneen bi mooy seetal sunu borom شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو yàlla nee na seede naa ni man yàlla amul lenn lu ñuy jaamu ci dëgg jaamu gi wér lu dul sunu borom malaaka yi seede ko borom xam-xam yi seede ko allahu akbar ban martaba moo gën a rëy yàlla jël teg boppam def boppam seede ñu ne ak kan mu tànn melokaan malaaka mu tedd ni ko ñëwal bokk ak kan mu ni ab borom xam-xam ñëwal bokk wa ulul ilm malaaka yi ñoom it borom xam-xam yi ñoom it qaiman bil qist ñoom bu ñuy seede dañuy seede ci maante ni laa ilaha illa hu kon borom bi subhanahu taala tànn na borom xam-xam def ko seede walis mboolem bindeef yi waaye ñaareel mooy jël na seede moom sunu borom mu lënkali ko seede borom xam-xam ak malaaka waaye sunu borom subhanahu wa taala yëkkatil na ko ay daraja ba wane ne moom kat bu seedee seedee bi lu wér la bokk na ci yi nga xamante ni mën nay wane ni xam-xam tamit lu bari ay ngëneel la mooy borom bi subhanahu wa taala dafa jël li gën a rëy muy xam-xam ak pas-pas tànn ab malaaka wala ay malaaka tànn ay borom yi xam-xam seedeloo leen ko te loolu ak kóolute lay tekki bokk na ci mbir yi nga xam ne dafay wane ni borom bi subhanahu wa taala ku màggal ñi xam la mooy sunu aaya ji ndax ñi xam ak ñi xamut danañ yam déedéet du ñu xam la mi wane kon ku xam kat yëkkatil nañ ko martaba bokk na ca bu ngeen delloo ci suratu mujaadala sunu borom ni yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat yàlla day yëkkatil ñi am ngëm yàlla ay daraja yu kawe waaye nag mu tànn ñi xam nag moom ñun fulal leen ñu gën a yëkkati ko ay daraja sunu borom ku xamut daf koy jàppee silmaxa kooku nan ko xommat nan ko war a ommat afaman yaalamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama ki xam ne lii yàlla wàcce mooy alquran muy dëgg muy borom xam-xam sunu borom ne ndax dana yem ak ki nga xamante ni daa silmaxa silmaxa bi mooy ki nga xam ne dafa nanguwul a xam moom xamut boo seetloo ñi nga xam ne xamuñu sunu borom daf ni ñoom dañoo tëx dañoo muuma dañoo selmaxa summam bokk mënoo am ci suratul baqara borom yi mu ngi koy wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñu xamul waaye sunu borom subhanahu wa taala dani saa bu ñu jaaxlee nanu dellu ci borom xam-xam laaj fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuun sunu borom subhanahu wa taala wax ni nag li ñuy tiitaroo ci àddina dara jaru cee tiitaroo lu dul xam-xam te tiitar boobu sax lu doon tiitaru waaye sant sunu borom lay doon mu ne xul waxal ni bi fadlillahi ci ngëneel ya yàlla defal muy xam-xam alquran ak sunna wa bi rahmati ak yërmandeem ci fa bi dalika falyafrahu kuy kontaan looloo jar nga kontaan ci mu ne huwa xayru mimma yajmaun gis nga aaya yi may lim boo ko toppoon mën nga cee lim lu mat juróom fukki aaya ak juróom wala lu ko ëpp sax bopp ci alquran yoo xam ne benn bu ca nekk ngëneeli xam-xam lay wax ndax borom xam-xam ak ku xamul danañ yem déedéet moo tax iblis borom xam-xam la gën a bañ journée journée bi mu gën a kontaan bokk na ci journée yooyu mooy bis bi borom xam-xam dee borom xam-xam bu dee moom njaboot gi dañuy gis ci moom kanam gi leer lool ndax ki doon gindi nit ñi di leen wan yoon wa dee na kon affaire yi baax na tey mu baax iblis dafay jéem lu mu man ci borom xam-xam ngir na tarxiis daal parce que xam na ni zallatul aalimi zallatul aalami borom xam-xam bu tarxiisee day yóbbaale àddina bi yëpp daal ñu bari dañuy topp ci gannaawam yàlla def na ci tawfiqi xam-xam ku ko am te bu ma nee xam-xam nag mooy xam-xam ak lislaam bu nuy jëfee waaye xam-xam boo xam ni borom jëfewu ko daanaka kalma xuur bañoon koo am a gën ndax li tax bañoon koo am a gën mooy xam-xam bu nekkul lay ñeel la day nekk lay këpp ci sa kaw boo dee seet ñi ragal yàlla ña xam ñoo cay jiitu moo tax boo gisee kuñ naan borom xam-xam te ragalul yàlla bu ko ñëwee sax ci xam-xam du borom xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama borom xam-xam rek mooy jàng alquran misaal yi mu comprendre ko wa tilka al amthalu nadribuha linnas sunu borom mu ne wa ma yaqiluha illa al alimun moo tax amr ibn murra moo doon wax ni su ma jàngee benn aaya muy joxe misaal ci alquran te comprendre ma ko mu ni bakaytu ala nafsi mu ni damay jooy looy jooy mu ni xam naa ne kon lastu min al alimin kon bokkuma ci borom xam-xam yi su ma ci bokkoon dinaa comprendre masala moomu kon mbokk yi loolu xeeti soñña la gu rëy goo xam ni war naa tax ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat jéem a xam sunu diine nag est-ce que xam nga ni jaamukatu yàlla boo xam ne dafa teg ak jaamoom ci xam ah dana ëppale aw yiw ki nga xam ni jaamukatu yàlla la bu kenn werantewul ak jaamu yàllaam waaye amul xam-xam moo tax imaamu nawawi rahimahullah biñ ko laajee xeeti naafile yi ban moo ci gën naafile yi xam nga naafile am na julli am na koor am na witar am na taraawih am na qiyaamu layl am na xeeti naafile yi bu ci gën ci buntub naafila mu ni sàkku ci xam-xam moo ci gën est ce que xam nga ni ki nga xamante ni mi ngi toog di sàkku xam-xam sàkku xam-xam boobu dana ëpp yiw ki taxaw di julli maa la ko wax loolaa tax abu hurayra gis nga mbirum naafile moom sonalu ci woon boppam jamono bi muy sàkku xam-xam yonent bi sonalu ko ci lam doonoon wax mu ne man damay teel a tëdd ndax ba cëgg damay sàkku xam-xam guddi gi lu may def mu ne sama sopp bi nee na ma daal witar moom lu ma bàyyi bàyyi bu ma ko bàyyi naa ko def lu ca tàmbali mooy ba muy topp yoon sax di sàkku xam-xam gis nga borom xam-xam yi bokk na ci seen lee yi leen yàlla may mooy dañuy faatu ba noppi continuer dund dañuy faatu ba noppi continuer dund allahu akbar mbokk yi xoolal borom xam-xam yi nga xamoon ci lislaam tàmbalee ko ca saxaaba yi ba ñu jeex taabi'un ya ba ñu jeex xoolal borom xam-xam yi taalif ay téere leen xoolal tafsir bi tey ñu ne ibni kathir moo ko taalif kañ ay téeméeri téeméeri at même ku xamul sunna sax xam na ko ibni kathir xoolal yooyu njariñ mbokk yi nga xam ne ku ñëw rek day jariñu ca la nga fi bàyyi woon maanaam ñoom kat ahyaa donte faatu na moo tax al imaamu zahabi ba muy tarjamaal gaa yu baax yi ca téeréem bu am solo ba ah tasgiratul xufaaz dani gaa yi ku leen bëgg a gis da ngay dem ci téere yi jàng leen mbaa nga dem suli leen fañ nekk waaye ñu mel ni ñoom dootuñu amati kon yu mel noonu mbokk yi ak soññee la yonente yàlla bi nee na ku jug di sàkku ci xam-xam yàlla dafay kontaan ci yow ba dafay wax malaaka mu lalal la laafam ngay joggi ci kaw laaf bi dem allahu akbar ban berndeel ban xeetu teraanga ban lalal naa la moo gën a rëy sunu borom lal laafu malaaka ngay joggi ci kawam pour sàkku ji xam-xam boo jógee di sàkku ji xam-xam garab yeeg xob yi bant yeeg miir yi pot lamp yeeg xottu butéel yi ñax yeeg mbalit mi lépp loo romb rek hatta alxaytaanu fi lbaxar ba jën yi nekk ci biir géej dañuy ñaan sunu borom naa ko waaye sunu borom kii yërëm ko jéggal ko sunu borom kii yërëm ko jéggal ko yow bu la sunu borom yërëmee looy doyati ci àddina bu la sunu borom jéggalee alaxira baax la nga xool loolu sàkku xam-xam moo la koy may kon mbokk yi nu xam ne xam-xam lu rëy rëy rëy waaye nag buñ koy sàkku kat nan yóbbaale arme ba de xadis ab jaabir ibni abdillah yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku jug di sàkku ji xam-xam ngir naa bokk ci borom xam-xam yi mbaa bu ñuy bu ñuy werante nga bokk ca mbaa nit ñi di la ca ormaale mbaa nga cay naxee nit ñi mu ne fan naaru an naar sawara sawara sawara sawara gis nga ko de iblis da lay dikkal nag hee sa waay yow de yow de borom yow de yaa fi gën a nekk borom xam yow de yaa raw nit ñi yow de yow de boo fi jóge woon sa waay mbaa yëf yi du yàqu yow boo dee woon affaire day fay di bu ko defee nga commencé sinkiliku yow kañ nga fi judd barki démb moo njaay xanaa yëf yi nekku fi woon avant nga fiy ñëw ay da nga yaakaar ne kon boo dee yëf yi dafay jóge gis nga pion nga bu suñu borom di samp pour liggéey bi gis nga boo fi dof dof la suñu borom da lay sempi sànni ca àll ba sampaat keneen summa la yakunu amsalakum te duñ mel ni yow ndax la nga doon bañ lépp kooka dana ko nangu kon fexeel nga jiital ak niyatu saaliha mooy ban mooy rafaul jahli an nafsi wa an ixwaani dinaa fexe ba réer dina yëkkatiku ci man yëkkatiku ci saay bokk nekk borom xam-xam nag tekkiwul nag mooy na nga am doctorat mbaa na nga am licence mbaa maîtrise mbaa boog masala muñ laaj na nga ko mën a tontu déedéet nit ki ne yamal fa nga mën a yem bul def takalluf wa ma ana min al mutakallifin gisoon ngeen ko ci jeexital suuratu Saad xam nga nooy defa yoro sa kaye nga tàmbalee jàng yoro sa alquran ngay jàng téere ba gën a jege jàngal tey nag fabda bi sigaari l ilmi qabla kibaari tàmbale ci lu ndaw la jërul yàkkamti jërul yàkkamti de tàmbale ci la nga mën a yem rek gis nga boo dundoon ba faatu fekk am ma yatasaaluna nga yem borom jaam ñi xam ni yaa ngi woon sa yoon wa di nga am yoon ku àgg alif lam mim ndax innama al amalu bin niyaat jërul përëx përëxi jërul yàkkamti jërul yenn sa bopp loo àttanu moo tax sunu borom mu ni hal yastawi ndax dana yem alladina yaalamuuna ñi xam walladina laa yaalamuun ak ñi nga xam ne xamuñu innama yatadakkaru day waaru day di fàttaliku ulul albaab borom xel yi te ñooy ñi nga xamante ni ñooy ñi xam sunu borom qul waxal ni yaa ibaadi yéen sama jaam ñi yaa ibaadi alladina sama jaam ñi nga xam ni aamanu da ngeen a gëm yàlla ittaqu rabbakum ragal leen seen borom ah yéen da ngeen am leen tënk de loolu laa waxoon sama mbokk ma mu naan ah diw mi ngi def lii ak lii ak lii ma ne ko sawaay yow da nga am la tënk te kii dara tënk ko yow ci sunna nga nekk sunna la tënk moom néew ci sunna sunna tënk ko kooku yow booy roy da ngay roy koo koo tolloo moom daa tënk yow da ngaa tënku te moom tënkuwul yow mi gëm yàlla da ngaa tënku comme da ngaa tënku nag xamal ni ñu bare bare bare doo mën a roy ñu yaa ibadi alladina amanu si yéen sama jaam yi gëm ittaqu rabbakum ragal leen seen borom ah sunu borom ni lilladina ñeel na gaa ñi nga xam ne ahsanu dañuy rafetal fi haadihi dunya ci àddina jii day xasanatun aw yiw fii ci àddina ku fi masa rafetal rek sunu borom fay na la ku fi masa rafetal sunu borom fay na la même yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo rafetalee da lay fay xam ngeen ne xëy na benn bis mu ni saxaaba yéen ñépp a ngi nii amul kenn ku masa rafetal jëm ci man lu dul fay naa la ba mu des Abubakar xool naa xool mënuma koo fay bàyyi naa ko yàlla loolu loolu loolu yàlla xaar moo tax suñu borom mu ni ah wama ci jeexintalu suratu allayl wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtighaa wajhi rabbi yonent bi ni ko bàyyi naa la ak suñu borom suñu borom ni ko wala sawfa yarda moo tax dinaa ko gërëm kon nit ki day jéem a rafetal fii ci àddina suñu borom fay ko suñu borom mu ni wa ardullahi suufa si yàlla si kat waasiatun dafa yaatu lool aay jii borom xam-xam yi ñu ni mooy wane ni foo mënta jaamoo yàlla jug fa dem fa ca des kunna mustadafina fil ard ah yow yàlla boo gisee mënuñu laa jaamu mooy dañoo néewoon doole ci kaw suuf mu ne alam takun ardullahi waasiatun fa tuhajiru fiha xanaa suufa si yàlla si yaatunu ba ngeen dem dëkki fa nun nag danoo jàpp ne moom Dakar moom boo fi dëkkoon dëkkoo ci àddina bi loolu tax Dakar so xaw ma ndax seetlu ngeen misaal moomu wala déet réew taax boo gisee mu mel ni mu mel ñun dañoo gëmut waa ardullahi waasia ah bu fekkee suñu borom xam-xam yi ñëpp moom ñëpp fi la ndànkali koo kay ñi ci sa ndànkali ko boo waxee gars yi ñu ne fi la xam-xam bi nekk fi la alal ji nekk fi la wërsëg bi nekk fi la liggéey bi nekk kenn du génn ah am na yoo xam ne fitnaal sa bopp la de takalluf la de wa ardullahi waasia amul kenn lu dul am nga dëkkab maam boo mën a génn dem xoolal lu seer li ñuy fay fii xoolal coono bi ñu fiy daj xoolal ñàkk gi ñu fiy ñàkk problème yi ñu fi am fitna yi ñu fiy dund suñu wàllu diine te mën a am barab boo xam ne mën naa faa dem dëkk fa dund sama diine yonte yàlla bi nee na des na tuuti njaxas mi dana bari fitna yi bari ba li nar a gën ci alal mooy as ay gàtt lu yooyu jënd dem ba ca gott ba ca àll ba ca garab ya nga xam ne dara du la tànqal lu dul sa picc yi ngay sàmm sa jur di sàmmaale sa diine ngay daw ci fitna yi yafirru bi diini ngay daw fitna yi fitna yi bu ko defee bu yegsee kat da ngay daal di gis ni doomu aadama kat su boobaa dana def lañ doon wax naan al xuslatu inda fasadi naas muy bu yëf yi yàqoo nga beru ci yow beru kan wër mën a nekk waaye bu yëf yi yàqoo ba gisatoo loo xam ne dara caa bokk sañ ngaa beru kon wa ardullahi waasia suufa si yàlla si yaatu na lool moo tax saxaaba yi tasoon mbokk yi di wasaare diine yàlla bi subhanahu wa taala xam nga ne boo demee ba Inde ñu ne am na saxaaba yu fa dee nga dem Yaman ñu ne am na ñu fa dee fun dëkkoon nga ne Màkka mbaa Madina lu ñu waroon avion amul fafalnaaw amul train amul da ah ñooñu gëmoon nañu suufa si yàlla si daa yaatu tey suufa si yàlla si nekkul benn dëkk kese de déedéet fu waay mën a nekk sunu borom ne alam takun ardullahi waasia xanaa suufa si yàlla si yaatul fa tuhaajiru fiha moo tax cheikhul albani rahimahullah am na jamono ay mbokk jullit yoo xam ne ña nga ca réew yi tubaab yi di dund ñuy wax ne waaw am nañ fa lii am nañ fa lële am nañ ma ne cheikh albani dëgg dëgg nag gëm na ni ndeke jullit daa war a dund fa jullit nekk gars yi ni ko am nañ ba am piscine yoo xam ni bu élèves yi wàccee góor ñaate yi feey ak piscine yoo xam ne jigéen ñaate duñ jaxasoo xam nga loolu ñun Sénégal sax amuñu ko fa fii paccax paccax jeeg jaxasoo gee fi am cheikh bi ne leen yonent bi da lam jàngale mooy foo mënta dundee sa diine jóge fa nga dem fa nga mën a dundee ji sa diine al muslim wal mu'min la tataraa naaruhuma al al mu'min wal mushrik ab yéefara ku ku gëm yàlla sunu borom mu ni waruñoo dëkk ba seeni tàkki tàkki safara di séenante dañoo war a sor yoo allahu akbar kon ardullahi waasia suufa si yàlla su yaatu la foo gis ni mënoo faa dundee sa diine rek demal fa nga ko mën a dundee ci sunu borom ni innama yuwaffa sabiruun sa borom yàlla nee na dinañ fay muñkat yi kat ajrahum seen ab yool bi xayri xisaabin te amul peese amul naqs allahu akbar kenn ci magi salaf yi nee na sunu borom day sëq rek di joxe nee na buy fay muñkat moom amul peese maanaam fii la ñuy jéggi balance bi mu ne sunu borom day sëq di joxe wa ma adrakum sëqat sunu borom nu mu toll bi xayri xisaab amul peese amul nat amul gam-gam le yàlla na lay jox rek ba sa xol seen rek nga doyal nga dem moo tax muñ am solo lool gisoon ngeen ko ci sur bu saar suñu borom mu ni qul waxal ni inni man kat umirtu dañ maa digal an abuda allaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin ma sellalal ko diine ci loolu moom weesoon na ci tàmbali surtout sumar mooy yàlla du nangu lu ñu sellal wa umirtu dañ maa digal li an akuna ma nekk awwalal muslimin mooy bokk ci ñuy njëkk a gëm min al muminin ak awal al muslimin dañuy bokk lu ñu tekki mooy bokk ci ñuy njëkk a gëm qul waxal ni inni man kat axaafu dama tiit in asaytu rabbi suma bore mooyee sama borom adaaba yawmin mbugalum bis boo xam ne azim dafa màgg lool lu ne ci moyukaay yàlla ngi mbokk yi aay ji mooy lu ne yi jullit bi war a sol saa bu mooy yàlla teewatee ci kanam ma ne aaya ji mooy lunet yi ki gëm yàlla war a sol saa bu mooy yàlla teewatee ci kanam mooy yàlla gi nee na janeet ci sa kanam nee ko hey inni axaafu in asaytu rabbi adaaba yawmin adim dama tiit su ma moyee sama borom mbugalum bis bu mettee mettee metti mbugalum bis bu metti dama koy tiit am na benn waay boo xam ni mooy yàlla da koo dikkal bànneexam yëngatu mu jàng aaya ji ba noppi xam nga nu mu def te dem jël baaraam bi daal di koy teg ci ànd bi ci ànd bi bu ñu ko tegee ci ànd bi affaire bi lakk mu xool mu ne ah gis nga li tax ni nga ko teel a yëkkatee nii te xool nga safara si safara si àddina kese la mu jël mor sa band bi ko affaire bi dikkalaatee mu jëlaat beneen baaraam bi cappaat affaire bi lakk mu ne ko waa gis nga ni nga ko gaawee teen bi te xam nga ne sawara si mënoo koo dékku xam nga mbugal mee gën a métti def ko ba juróomi baaraam yi daj ndeke ndaw sa mi ngi koy xool bi ndaw si yegsee daal di tuub netti li ko bàyyam ne ko ki ma gis du nit jinne la déedéet ki ma gis tey du nit jinne la ndaw si tuub nekk jaamukatu yàlla bàyyi ji jub di wëri ku góor bi mu ko wëree ba gis ko mu ne ko màndargama mooy ñett juróomi baaraam yépp daa lakk mu ñëw ba xool ko gis juróomi baaraam yi lakk mu nettali ko mu ne ko ñëwal ma fat la jox la foo dëkk may la sama doom jooju nga xamee moom nga bañoon a mooy yàlla yàlla ba lii tan lii dal la gis nga mooy yàlla saa bu la dikkalee boo fàttalikoo sa borom rek dalay woon wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa ki nga xam ne mbir mi daa nekk ci kanamam mu fàttaliku taxawaay ba mu war a taxaw ci kanamu boroomam mu àtte ko indil ko image yam doon def yépp wa naha nafsa anil hawa mu tere bakkanam mooy yàlla gi mu nar a def kooku moom buy yegsi rek ma koy tëmbal ajal am na benn waay bu ñuy wax rubay ibni xusum jaamukatu yàlla bu mag la woon ca kuufa xale yi jigéen yi koñ bi yépp mu muur leen bandi koñ bi yépp mere ko nga xam nga ne xale yu jigéen yi bu ñu muuroo feccukaay yi dootul feesati saay saay si daal daje ñu ni Rubay ibn Xutaam nii may wax nii moom la Abdullah ibn Mas'ud doon xool ba mu yàgg mu ne ko wallahi law raaka rasulullahi la ahabbak mu ne ko yow moom bu la yonent bi gisoon dina la bëgg loolu moom wóor na ma ndax xam naa ko yonent bi xam naa la yow it gaa yi ñu ne nañ ko fexee fitnaal ñu stand jigéen ji gën a taaru ci dëkk bi ni ko fitnaalal suñu waa ji da ngay futteeku ba mel na la sa yaay juree woon nga koj ko bu dee dem jàkka ja waxtu fajar mu laqar ci koñ sàkkat bi rek ndaw si daal di futteeku ba mel ni ko yaayam juree woon ci kanamam ruba yaay daal di jël kanam gi taf ko ca sàkkat wa commencé di yuuxu tey waaraati ee yow jaamab yàlla bu jigéen bi est-ce que bu malakul mawti wàccoon fii di nga bëgg mu faat la ci melokaan bii nga yore saa boo taxawoon sa kanamu borom mu di la àtte ndax da nga bëgg image bu mel nii ñu tegal la di ko ko benn bennal di ko ko benn bennal ba ndaw si daanu xëm ba ndaw si daanu xëm laa wax bi mu ximmalikoo xam nga nuñ ko mujj di tuddee turam daa réer léegi aabidatul kuufa lañ ko doon tuddee jaamukatu yàlla kuufa bi ñi koy sang bi mu faatoo nee nañ dem nañ ba boo làmbi fii ay yax rek nga ciy fekk ndax nelawati guddi bëccëg lay woo ndax waaraate koo nga ko topp ba tey kii ma mucc na moom mucc na mucc la kon doomu aadama saa bu ko mooy yàlla dikkalee mbokk yi na fàttaliku laaye ji qul inni man kat axaafu dama tiit in asaytu rabbi bu dee mooy naa sunu borom adaaba yawmin adim mbugalum bis bu metti xulillaha waxal ni yàlla kat aabudu moom laay jaamu muxlisan lahu diin di ko selalal diine ji du ma ko bokkaale ak leen suñu borom ni faabudu ma shi'tum kon nag jaamu leen leen soob mbirum jaamu yàlla leer na ku nekk xam na ni yàlla lañ war a jaamu yow nga bàyyi ko fi di jaamu leneen ah jaamu lu la soob waaye wax leen ni leen jaamu leen lu leen soob min duuni wali suñu borom ah te yàlla moom lañ war a jaamu ngeen jaamu leen soob wax leen ni leen ah inna alxaasirina ñi perte dëgg alladina mooy gaa yi nga xam ni xasiru anfusahum perte nañ ba perte seen bopp wa ahlihim pertaale seen njaboot yowma alqiyamati bisu yowma alqiyama allahu akbar perte gi gën a màgg mooy perte sa bopp kun tàmbal sa war a perte nga sa bopp xam nga doomu aadama day perte waaye yow sa jëmm ji perte googu da nga doon commerce nga perte alal ji liggéeyu la yaa ko liggéey kon demal liggéeyuwaat ko waaye yow booy liggéey ba perte sa bopp yow jëmm ji moo doon liggéey kon foo jëmati sunu borom mu ni ñi perte dëgg alladina xasiru anfusahum mooy ñi nga xam dañoo perte seen bopp wa ahlihim pertaale seen njaboot tàbbi nga sawara seen sa njaboot tàbbi sawara wala yaadu billah yowma alqiyamati bis yowma alqiyama sunu borom ni ala dama ni dalika loolu day huwa alxusraanu mubin mooy pertaange ju fës ju mag ja yàlla sunu borom musal na ci sunu borom ni lahum ñeel na leen ñoom ñooñee ak ñañ fay fekk ak ña leen fay fekk ci biir sawara min fawqihim di leen féete kaw zulalun ay niiri sawara zulalun ay niir min annaari ci sawara wa min taxtihim leen féete suuf lal laltu gañ leen di lalal zulalun ay niir la ay tape lay doon min annaari ci sawara wa min taxtihim zulal ba léegi tamit ay niir ay tapi ci la nga xamante ni moom mooy sawara dalika lii nag ngeen di dégg sunu borom mu ni yu xawifu llahu la yàlla di bàyyiloo xel di tiitalee ay baadagu ay jaamam lii la leen di tiitalee ngir ngeen bàyyi caaxaan yi soobu ci jaamu bi kon nag yaa ibaadi yéen samay jaam sunu borom mu ni fattaquuni na ngeen ma ragal bu ko defee bu ngeen dajeeg man ma mën leen a yërëm yàlla sunu borom boole ñu ci jaam yooyu koy ragal yàlla sunu borom boole ñu suñu yërëm يلا يلا مسل متبغل سفرا اللهم انا نستجير بك من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين